Mamadou Ibra Kane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. gis nañ ne ki nga xam ni moo di président de la république recevoir na leen fële nga xam ne moo di ca palais de la république la nga xam ni itam nekkoon na seeni ay jàmbat mel na ni ñëw na ku leen wàllu si ci mbir mi daanaka effacé li nga xam ni itam moo jëm ci wàllum dette fiscale bi xam ngeen ni charge yu bari woon na lool ci presse bi alors tey ban commentaire ngay def ci wàllu wi ni mel. waaw euh, damay exprimer d'abord euh, remerciement président de la République bi nga xam ne nangul nañu audience buñ ko ñaan audience euh, buñ ko ñaan dañu bëggoon ay ay digge ay mu ñu defoon si conseil présidentiel Euh, bu septembre deux mille vingt sur la relance économique mu eggali euh, action yi nga xam ne moom la fa mëne woon président de la république si conseil présidentiel euh, bu septembre deux mille vingt dafa jëloon ñaari décision yu importante pour la presse benn bi mu ne comme presse bi yéen si ay jafe-jafe ngeen dëkk Euh, parce que amu leen ay moyens économique yu doy donc man dinaa fexe ma wàññi seen charge euh, premier dogal bi jël mooy dafay effacer la dette fiscale des entreprises de presse ñaareel bi mu ne non seulement dinaa ko effacer ngeen am li nga xam ne mun nañ ko woyee virginité fiscale léegi euh, at bi si tegu maanaam muy deux mille vingt et un du premier janvier au trente et un décembre dinaa leen defal exonération fiscale euh, exonération fiscale boobu dina tax euh, charge fiscale yi ngeen xam ne te ngeen ko war a fay bi charge fiscale yooyu ngeen mun ko dugal si seen fonctionnement mun leen permettre éventuellement ngeen def ay investissement donc euh, concernant exonération fiscale bi effectivement euh, loi de finances deux mille vingt et un euh, loolu ñëpp mun nañ si teg seen bët euh, am na ay dispositions pour exonération fiscale des entreprises de presse donc loolu moom firnde na ko léegi euh, concernant effacement fiscal bi foofu lañu amoon ay jafe-jafe parce que président daf ñu def une promesse mais euh, l'administration sénégalaise comme moom këyit la xam moom mënul jàpp euh, président de la république dafa effacer dette fiscale yi donc euh, tolof tolof yooyu la ñu nekkoon depuis euh, septembre deux ba tey entreprise yu bare yi nga xam ne euh, impôts yi dañ leen di topp euh, di saisir seen compte wala li ñuy wooyee ATD di ATD compte donc ba jamono bii ñu wax ak euh, yow am na ay entreprise yi nga xam ne mënatuñu jot ci seen compte parce que ñoom entreprise yi dañu jàpp ne am nañu effacement fiscal mais lempo moom nee na amul kayit bu ko firnde donc loolu moo taxoon euh, démb ñu dem seeti président de la république pour mu mottali euh, action boobu mu mëne woon en septembre deux mille vingt donc bu ñu demee président de la république euh, nanguwaat ne moom moo defoon dige boobu te moom yaakaaroon na ne service am yi donc matérialisé woon nañ ko donc mu ne léegi euh, dinaa jox dogal suma directeur de cabinet muy Ismaël Madior Fall donc mu def lépp li nga xam ne euh, sur le plan administratif pour mu firnde ne euh, entreprise de presse yi am nañu effacement fiscal euh, euh effacement fiscal bi léegi daf ko yokk ba 31 décembre 2023 waaw loolu vraiment mu nekk euh, li nga xam ne dina yombalal liggéey bi entreprise de presse yi. maanaam ak yi la daal suñ ko mënee tuddee ni ni mel. waaw waaw non non ah fu mu nekk nii xam nga njiitu réew bi euh, moom mooy euh, moom si boppam institution la doo considérer comme nit ki ah. donc moom bu diggee rek da sa force de loi waaw te nee na dina ko firnde ou bien benn arrêté ministériel bu euh, bu ministère de finances wala moo xam euh, benn décision benn décret bu muy jël et cetera donc loolu muy benn ñaareel bi euh, entreprise de presse yi nga xam ne dañuy yëngatu si mbirum audiovisuel maanaam ñu yor rajo ak ñi yor télé dañ doon fay euh, dañuy fay sax euh, ay redevance redevance yooyu dafa diis donc mu ne léegi redevance yooyu comme que da ngeen ci am ay bori yu bare te amuleen yéen loo leen fayee euh, dinaa ko annuler donc redevance yi nga xam ne entreprise de presse yi dañ ko waroon fay te mu takku loolu moom moo ëpp sax dette fiscale bi donc ba 31 décembre 2000 donc 23 dinaa annuler lépp donc euh, loolu vraiment nekk euh, lu ñuy rafetlu loolu parce que euh, du xaalis bu ñuy jox ñu nii di ko pàccoo mais entreprise bi moo koy bénéficier wu pour charge am daal di wàññeeku ñetteel bi mu ne comme que léegi euh, système de diffusion des télévisions dafa changé dootul ay redevance yu ñuy fay ARTP ay frais de diffusion la ñuy fay sur la TNT donc frais de diffusion yooyu euh, dafa am benn société bu nga xam ne état bi moo ko créer ñu koy tuddee TDS SA donc TDS SA daf ñu fixé ay tarif de quatre millions pour euh, diffusé télévision sur la TNT donc mu ne montant boobu euh, dinaa fexe ñu wàññi ko ba cinq cent mille donc maanaam léegi dootu leen fay quatre millions par mois muy quarante huit millions ci at gi donc dinaa leen euh, wàññil ba cinq cent mille parce que président d'accord na ak ñun ne rôlu média yi dafa important si démocratie rôle euh, rôle média yi dafa important si euh, développement économique et social parce que moom si boppam sa fàttali na ne ne bu mu ñuy bu mu ñuy dalal euh, en mars deux mille vingt boobu fekk Covid bi commencé na mu ne dafa rafetlu woon torop rôle bi nga xam ne moom la média yi joué dans la lutte contre le Covid Covid 19 donc rôle média yi dafa am ay pàcc yu bare yu nga xam ne dafa am importance dans euh, le développement économique et social te boole si ñu fàttali ko ne moom bi nga xam ne tey mooy jiitu réew mi euh, ngir presse libre euh, et indépendante ngir presse euh, républicaine moo tax ñu mun a am alternance politique en deux mille moo tax ñu mun a am alternance en euh, en 2012 bu nga xam ne ci lañ ko fale donc loolu moom euh, nee na euh, si lu ko dese ci mandaam donc action yëpp yi nga xam ne mun na yombalal liggéey bi euh, entreprise de presse yi dina ko jël et notamment montant frais de diffusion au lieu mu nekk 4 millions mu nekk. donc cinq cent mille francs par mais gis euh, nañu euh, Mamadou Ibra mhm. Kane léegi li nga xam ni moo jëm ci secteur presse bi dëgg la soulagement am na mais est-ce que mhm. loolu rek moo nekkoon jafe-jafe bi wala am na li nga xam ni itam des na. am na lu bare bare bare bare lu des ci euh, mbirum presse Sénégal parce que at yi ñu génn boo xayma à peu deux mille euh, ba deux mille quinze sax mun nañu wax ne c'est lage d'or de la presse au Sénégal si la ñu gis euh, ay quotidiens yu bare yu génn ñu gis ay rajo yu bare yu génn ak ay télévision mais li ko dalee à peu deux mille quinze jafe-jafe yi dañu bare te jafe-jafe yooyu tax na ba tey entreprise yu bare day leen wooyee entreprise mais en réalité euh, utewuñu dara ak entreprise informelle yi yu nga xam ne amuñu comptabilité yi nga xam ne seen travailleurs yi amuñu contrat amuñu couverture médicale amuñu couverture sociale euh, kenn du leen cotiser pour retraite donc loolu ay jafe-jafe yu nga xam ne dafa nar a indi danger ci presse bi parce que léegi ku am xaalis rek nga jënd sa journal nga jënd sa rajo wala nga jënd sa télé dégg nga euh, ñu lay ñuy wax li nga xam ne du moom moo méngoo ak luy rôlu presse c'est-à-dire servir le, le citoyen euh, donc loolu dafay indi ay jafe-jafe yi nga xam ne dafay compromettre euh, l'indépendance Euh, le caractère républicain de la presse donc euh, yooyu il faut que ñu jóg si pour ñu jóg si nag euh, defar nañu environnement fiscal maanaam entreprise bi amatul bor li nga xam ne moom la ameloon si bor dégg nga mun na si jël au moins pàcc bu nga xam ne daf koy investir dans l'assainissement de l'entreprise donc il faut que ñu assenir entreprise yi que entreprise yi ñoom tamit ñu respecter la loi parce que réew lu ko yor mooy le respect de l'état de droit nga nekk président la république nga nekk simple citoyen nga nekk simple automobiliste dégg nga nga nekk médecin wala nga nekk gendarme wala nga nekk euh, nekk magistrat képp koo munti doon que loi bi ilif la loolu mooy republique donc loolu il foog ñu xeex ko pas ñu nangu ay nit ñi parce que dañu am xaalis ñuy créer ay entreprise de presse di manipuler opinion sénégalaise euh, si ay information yu nga xam ne méngoowul ak intérêt Sénégal ak intérêt citoyen Mamadou laaj bu mujj bi bokk na ci tey ñu ngi ci élection présidentielle daanaka ñu ngi def campagne candidat yi ñu ngi wër di diggee mhm. seen ay programme programme yooyu noonu ne lan nga jàpp ni ñoom candidat yi euh, fësal nañ ko ci li nga xam ni itam moo di presse bi lan moo ci war a nekk cëram ak lan moo ci war a nekk seen taxawaay waaw seen taxawaay xam nga ñun régime présidentiel la ñu yore en tout cas ba bii may wax ak yow élection yi ñuy organiser tamit pour euh, élire ben benn président bu nga xam ne système euh, de régime bi nekk actuellement au Sénégal mooy présidentiel un régime présidentiel donc euh, président bu bees bi nga xam ne sénégalais dinañ ko fal la presse dina ko seeti mais presse bi koy seeti du patronat bi rek le patronat de la presse bu koy koy seeti mais tous les acteurs des médias ñooy dem seeti ko euh, jamono yi ñu génn nii euh, toutes les organisations de médias euh, organiser nañu benn euh, benn instance bu ñuy wooyee assise nationale des médias assise nationale des médias boobu dafa gëstu lépp luy presse au Sénégal muy démb muy tey muy ëllëg naka la ñu war a mun a def su euh, presse bu nga xam ne facteur de stabilité politique et sociale lay nekk facteur de développement économique euh, naka la ñuy fexee pour ñu mën a réunir conditions yi nga xam ne presse bi dina mun a liggéey nu mu waree ngir Sénégal ngir citoyen sénégalais donc loolu dinañ ko jébbal euh, euh, la coordination des associations de presse bu nga xam ne moo ëmb bépp organisation de presse de de journalistes ou techniciens des médias au Sénégal euh, dina ko jébbal le nouveau président de la République waaw am na ay propositions en matière. Mhm. de refonte totale du code de la presse. d'accord. parce que euh, ak nangam nangam nangam. donc affaire yi dafa bëri. d' accord euh, Mamadou Ibra Kane ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni nga nangoo tontu sunuy laaj. maa ngi lay fay. di fàttali ni yow yaay président euh, conseil des diffuseurs et éditeurs de. presse du Sénégal. Merci beaucoup, c'est un plaisir. beaucoup.